lu nu nekk nag dafa baax nu yeesi nit yi ñun lu nu nekk ñaar la benn bi mooy na nu def loo xamante ne ku nekk euh, étudiant bi kii di liggéey kii di dawal oto charretier bi ñëpp mun nañ ci dugg formé ngir jàng nu nu war a mun a doxalinee ku ci nekk ci sa boor ñii nu ñuy doxalinee ci tali bi ku ñii nu ñuy doxalinee seen kër ñeneen ñi nu ñuy doxalinee ci université bi moo tax ñun ñu créer Euh, maanaam euh, jumtukaay boobu ñu tuddee ko euh, plateforme loo xamante ne la yow ci sa téléphone kii ci ordinateur ñëpp mën nañ ko am pour mun a former wu xam ku ci nag yow li nga doon loo doon ak noo si mën a jëfandikoo mais suñu gëm-gëm ak suñu pas-pas ci bëgg a def dara ci réew mi moo tax ñun ñu jàpp ko def ko génnee suñuy poche pour def lu ma doon wax sànq nag ma gën ko leeral ma ne yéen ñuy taxaw fii ki yore micro bi ci yore caméra bi ñuy taxaw fii sunu wet ci lañu bokk parce que adduna bi dafa nekk di soppeeku adduna bi buy soppeeku yow da ngay dox nga soppeeku ak moom sinon noo la lay bay nga mereku la deful dara donc ñun loolu la ñu bëgg a def dimbale si xale yi dimbale si mag yi surtout nag xale yi parce que toll nañu jamono bu nga xamante ne mi ngi dox te dafa gaaw te xale yi nag pour ñu dab ko day day xaw a sooxe tuuti fi lekk ñoom jàngunu luy seen bopp fi ñoom jàngunu nu ñuy doxalee donc loolu moo tax tey fii ci sikkat Euh, ñu woote woon ndaje bi pour euh, xelal nit yi pour dimbale nit yi pour ñu commencé xàmmee nu war a doxale